bismillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu may ñu ak dégloo wax ji du yàgg xam naa cinq minutes gën caa bari rek muy kàddu yu soññi ñi ngi ñaan nag sëriñ bi suñ jataay bi mu gërëm ko tam nekk ngir jëmmam rekk ak jëmmi yàlla lépp lu nar a yàq jëf yàlla nañu ci musal ci barkeem fii ci Liberwali fi la wax ne malaktu rabbi yàlla daa Liberwali kulliyati fa durru zoo taxawuli fii ci Liberwali laa moomale yàlla sama lépp ba tax lor juñ mën a roon a lor mu wëlbatiku ndax kenn ku ne xam na ne bis bi mu tegee tànkam fii ci débarcadère bi dafa dox ñetti jéego fii ci malaayka ñun lii lépp ci téere yi lañ ko daa gise waaye biñ ñëwee fii lañ jàkkaarloog moom mu julli fa ñaari ràkk ca saasa ñu yóbbu ko ca caserne ba ca camp ba liñ fi doon wax lépp fii la xewe fii lañ ko gasale pax def ci sawara muur ko jaarale ko fekk yonante bi sallallahu alayhi wasallam xibaar na ko fii biñ ko dugalee ci camp daana baagante di ñëw fii ñu toog ñun ñii tey di montagne daa fi wéet di jaamu yàlla fii lañ ko indee ci garab gi takk ko yeew ko ba ne ngodd tubaab yi daal di woo fukki officier ak ñett ak seen commandant kuy diglu sëriñ mu Lo nee na kañ naan Banda Touré nee na ko fekke woon naa ko ndax buñ ko daa takk dañ naan kaay leen seetaan nee na ba commandant bi ti joxe ordre ne téere leen kenn ku ne dana dàkk benn cër ba mu ne upp ahlu badri ñoo ñëw ñoom ñëpp ñu gis ñu tëdd lépp nekk pënd garab googa tey moo soppali ku doonu teen nii ñu ci barkeelu lii liñ ciy jànge mooy dëgg rek mooy mujj te ku nekk ci dëgg bul ragal waaye nag dana metti fii ci Libreville ci la waxee ne lil muntaxa xuttu la daa Libreville maa xaada lii maa xaaba an kulli képp kuy nitu yàlla fii ci Libreville la ma yàlla joxe loo xam ne ni ump na la kenn ku ne xam nga ne ñëw ci Sëriñ Tuubaa ne ko nàngam mu ne xaaral ma laaj ko saa borom dugg ne la saa borom nee na loolu wàll yu xam ko tërbiye Cheikh Rafaal sëñ Mandumbe sëñ Daam Arahmaan Lo ne leen tey bis ni ki tey lépp lu ngeen wax ma defal leen te xamagoo lu ñuy wax te bu ñu paree noonu lay amee loolu kenn xamul lu mu doon fii fi la waxa ne yasara la lil muna la daa libar wali man xaada yi maa xaaba xan kulli wali la ma bëgg lépp fii ci libar wali la ma ko yàlla yombale jox ma loo xam ne ni ump na wàll kon ma ngi koy wax ak a waxaat waaye nag liggéey bi li ci ñor Serigne Touba lépp bu doonoon cent pour cent da naan soixante dix pour cent yi mooy Gabon trente pour cent yi di Mauritanie ndax saa buy bàkkoo liggéey bi fukki at lay wax. juróom-ñaari ati Gabon ak ñetti ati Mauritanie moo tax ma ngay wax ne baaha rasulullahi kullal anbiya alayhimu azka salaamay rabbiya bi gurbati ashra sinina bi xidam xaalisatin lisil wujudi wal xidam yonente bi nga xam ne mooy ndawul yàlla woona yonente yépp ñu taxaw mu ne leen liggéey bi sama surga bi sama xarit bii sama soppe bii di xaadim rasul liggéey kenn am ko di ko puukaranteeg yonente yépp waaye muy liggéey boo xam ne Sëriñ Tubaa da koo defoon te yàlla rekk tax doyloo boroomam liggéey bi ci la waxee ne bilxatti jaahadtu aduwallaahi xashrata awaamin bi zikrillaahi muy liggéey bii ñuy jariñoo tey ci liggéey bi ci la waxee ne jamaa lil jaamihu inda gurbati xuyuurahu wa xaadani li turbati mbooleem yiw yi mbooleem lu baax suñu boroom ci sama tukki bii la ma ko dajale waaye nag dana ma wommat ma dem ca sama suuf Sénégal moomale googu muy moomale Sénégal boppam tax na képp ku fa dëkk war ngaa am ndam war ngaa am santiment de fierté ndax ci ay mbindam réew mi da ko ci tudd lu bari baydu ba may jeexale nag mu ne xustu mawaahibal kiraami turra la daa bi la daa taxarrubin kafaani charra mbooleem may yi gaay yàlla yi amoon yépp ci sama tukki bii la ma ko yàlla dajale kon tukki bi buñ koy wax rek baax na lool ñu seral suñu xol yi ndax jar na ko bu serelee suñ xol yi ba pare ñun lan la ñu serale xolam moom Serigne Touba kenn ku ne xam ne du hasard ñu ñëw fii tey ñu ne Serigne Touba bi mu fi jógee léegi mat na téeméeri at kon mbir mi faw day jóg kaw insha allah ñu ñëw tey ñu may ñu fi suuf loo xam ne Serigne Touba ko moom yaatalal ñu fi. c'est la première fois ñu officialiser mbir yi loolu ko am na lu muy wund léegi nag ñun lan lañ ci war a dox lañuy njukkale Sëriñ Tuubaa mooy kenn ku ne jàpp ne lim fi andi woon yaa ko war a jàllale ba àdduna bépp jot ci kenn ku ne ci ñun jàpp ne koo gis te du jullit yaa ko war a teete laabiire ko ba ñëw ci Sëriñ Tuubaa waaye du ay wax rek de ndax àdduna bi weesu nañu wax jëf ak comportement bu rafet la ma koy daaneele mooy lam daa wax ne képp koo xam ne nii mi ngi gëstu sama mbir nga tax koo dëpp ngir sa jikko doo jéggi ab jéega yowmal xiyaam te layowuñ ko ki ñu àndal ginnaaw dafa yor lépp ndax ci Sëriñ Tuubaa ngay gis diversité buñ dajale yu am njariñ yépp mu dajale ko ci ay nit yu wuute ñu wuute nuñ ko amee ñëpp di roote ci moom te ba ñuy roote ci moom lañ roote ci moom lépp desal na lu ëpp luñ foogul kon kooku liñ koy toppee da koo am loolu nag dafa jot ñu wan ko mbindeef yépp ne leen ñëw leen waaye nag dañ leen koy wan ci xam-xam wan leen ko ci dëggu wan leen ko ci yitte ju kawe ndax lépp lu baax rek am na ko te wane na ko kon nag Gabon nañ xam ne àdduna bépp fii lay jublu si ndax liggéey bépp fii la ne te am na lu mu tàmbalee loolu wane loo xam ne déwén déwén jéeg ak déwénaat jéeg dangeen ci tàmbalee gis ay mbir lii mu am ameewu ko Europe ameewu ko États-Unis ameewu ko Canada Gabon la ko amee lu tax Gabon yooyu ay laaj yoo xam war nañ ko laaj suñ bopp lan moo tax sëriñ Serigne Fallou Bousso initié lii ba lii juddoo ci tey ay murid Gabon nekk fi di yor loolu bañ man cee jot tey lu tax ñoon Sëñ Tuubaa daan leen kon ñoon am nañu sas kon jot na tey ñun ñëpp ñu toog jaayante suñ digganteeg suñ boroom suñ digganteeg Sëñ Tuubaa liggéeyam bi ñu sàmmal ko ko lépp lu ci njariñ war a dem ci jaam ni ñu jot leen ko ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa te nag mbir yi ngir mu sotti leen rek koy sottal teg Sëñ Tuubaa suñu kanam kese luñ fi teg lu dul Sëñ Tuubaa suñu kanam moom yaa waxoon na bind na ne suñ borom bind na ca lawhul mahfuz ne ne ki bind araf yi suñ boroom xamal na ko li nekk ci xolu mbindeef yépp ku koy nax dana wóor ne mënoo koo nax sa bopp ngay nax kon nañ seetlalaat yi nii lépp lu ñu yëkkat ci Sëriñ Tuubaa ñu def ko ngir jëmmam te bu dara masa am ci àdduna ci mbumbaay ba mu tax ñu waxal Sëriñ tubaa lu dëgg loolu moom na ko kenn moytu jaayante ko sa sa diggante ak sëriñ bi ndax yonte sallallahu alayhi wasallam nee na woon man kas sa yen fa kazzaba alayya fal yubawwi maq'adahu fi naari képp ku ma fenal na nga xam ne sa place ca sawara lay sax dàkk te yonente bi saa bu ñu ko waxee nañu wóor ne Sëriñ Tuubaa moo ko doon ci kaw suuf ba addunay tukki ci zaahir ak ci baatin kon nañ moytu di waxal Sëriñ Tuubaa lu ñu yebe ndax nee na képp ku wax dara nit di ko sikk na la wóor ne du ci man waaye ci yow waaleykum salaam wa jërëjëf sëriñ Baye Dame noo ngi lay masawu coono ndax ku ne xam na ni xat nga waaw loolu loolu sax laa bëggoon waaye jërëjëf sëñ Xaasim ndaka euh, Touba ga nga ne yaa ngi fa occupé poste bu rëy ci comité ya fa ne rawatina rawdu rayaaxiin ak lu mel ni moom yaa ngi fa occupé poste yu bari nga bàyyi lépp ànd ak murit yi bopp ba tey tàyyiwoo sonnoo di nu wax bërki démb ci Maayomba trois heures du matin mi ngi la fekk nga toog di xiirtal ci sëriñ bi ak njub ak mbaax loolu nag murit yëpp amee la ci njukkal te it ngay sëtu borom saam maam Mor Jaara mag yi mag ma doon wax naan maag sëriñ bi ñaar ñu ñaar ñu yàlla ñu ñu yónni lañ ñaar nag bu ñu yónni bu ñu leen yónnee kenn nay wax ñaar ñaari ndaw boo leen yónni woon fi ne ko ma wowoon woo son yi bu mbay sëñ bas mii nañu dem leen ngeen wax nangam diw buñ ñëwee man rek maay wax looloo tax boroom saam def loolu kon ma bëgg taalibe sëñ tubaa yi liggéeyal ci barab bii sëñ tubaa ci yow maa ngi ñaan ci darajey sëriñ tubaa na ko ñëpp jox àddiyee sëñ tubaa loolu maa ko ñaan daa am nag ñetti nit mat na sax ñeent ku ne ne ma fii lan moo fi xew nangam nangam xam naa ko waaye sëriñ Seex Mbeng daf maa gën a jotal kàddu ma bëgg mu toog fii wax nu lan moo fi xew parce que fii fii doyoon na de fii te bu sëñ Cheikh commencé di ngeen ci xam dara fii rek a taxoon Jibril na cëpp wàcc soppaliku général ba ca France takk ay galon ne commandant yee bàyyi leen ko dama koo soxla dox ak moom ba mu yàgg ne ko ndax xam nga ma mun na ko jibril lu xew mu ne ko sa borom nee na nga wan sa jaam jaam ñi sa bopp jot na fii la tubaab yi gisee ahlu badrin malaaka yi fii kon loolu duma ci continuer parce que micro bi laa yor waaye sëñ As damay bàyyi nga kii rek sëñ Cheikh Mbengue nga ñëw résumé nu loolu ak kàmb gi nga xam ne sëñ Abdoulaye waxoon na ko nu daal di jox sëñ bi nag Eh, yëkkati eh, lu ci topp ñu topp ci bala ma naan yëkkati jotaay bi ndax nun dañuy màggal sëñ Murtalaam sëñ Fallou nee na ma yéen ñooñu yéen a waajal màggal gi bu ma ko waxut yàlla ab télé sax laa yor nañ ko caméra nañ ko filme sëñ Murtalaam sëñ Fallou nee na ma surtout sëñ tubaay yooyu fa ne ak sëñ see xaddim yéen a ngi ak yéen mbooloo moom de dafa dafa dafa dafa sax soppiku ci téléphone bi ndax moom murit la moom sëñ Murtala am fan ne ma ne ma yaakaar naa beneen yoon dama koy ànd ak ma leen di jottaliwaale yi tamit nuyoo sëñ Basiirum sëñ Abdou Xaadir nee na sëñ Basiiru mii fi teew mate na njabootu sëñ Tubaa gépp loolu loolu loolu wax na ko te moom bu ko waxee rek mooy sëñ mu Muntaxaa ko wax moom mi ko yebal kon bisimilah bu sëñ aspare rek sëñ Cheikh Mbengue ngi ñëw toog Euh, defal nu loolu ci benn dix minutes yoo xam ne dañ koy déglu attentivement jël téléphone yi nag gis nga yii ñu jël nii comme gars yi sañ nañoo TikTok ak di jàllale caaxaan nañ nañ dem ak ñoom ci internet bi dugal leen ko fet ba nu xam ne dañuy dañuy waajal màggal gi noonu fii ci Gabon boo ñëwee ci dëkk wala ci kër da ngay wuyu borom kër ga imaam bi nga xamante ne moo nekk fii ci jumaay montagne sainte imaam Massayer Fall yàlla dogal mu génn dem baram ba mu demee ba léegi imaam buur moo ko fi taxawu imaam buur dañoo bëgg mu ñëw rek dalal ay ganam ñu continuer waxtaan bi imaam buur bisimilah mm. bu imaam buur noppee seen cheikh bay mu jël kàddu sëñ Cheikh bu weesoo ñun fi teewu di Cheikh Mouhamadul Basir mi nga xam ne doom la ci moom ak mboolem ñi mu àndal di waa Mbàkke ak waa Mbusoobe ak seeti Cheikh Ibrahima Fall yi xam ne ñoo ànd ak yéen ci liggéey bi waaye di siyaara bu baax mbokk yi nga xam ne ñoo taxawal karawaanu Mayumba gi bu ñu siyaaree Serigne Cheikh Mbeng ak mbokk yi mu ko àndal rek daanaka dina yóbbaale yépp waaye di ñaanal sunu borom di ko ñaan ci sañ-sañam beeg monam geeg yërmandeem yaatu gi mu dotti yërmandeem gu yaatu ak barkeem ak dolli leeram ci Cheikh Fallou Bousso mi xam ne moo ne ko nag ñun ci réew mi te yàlla dogaloon lii doon ay naalam yoo xam ne. xëy na yaakaar nañu ne lii ab jéego la boo xam ne bokk yi ñu ngi ciy dox mu doonoon ay borom yéene ju yaatu waaye borom borom hitte ju kawe ñuy nuyu sëñ Seexuna Buso bi nga xam ne mu ngi ànd ak yéen ci jataay bi te taaral ko di leen dalal jàmm ci béréb bi nga xam ne ni ko mbokk mi waxee léegi mooy béréb bi xam ne bare na fu waaye waaj jëm ca ngir sàkku fa yàlla te li xewoon ci béréb bi xewut foofa ndax daa waxoon ne day béréb bi de la ko yàlla yombalale li jafe woon mboolem wali yu te fàddu leen waxoon ne day fii day la ahlu badrin wàccoon ànd ak ay fas waaye ngir dimbali ma ngir def intervenir ila na xasaarahu ma xuyulihimi waxaafal ida minhum wa maalo ila salami bi la xewoon kon daanaka bari na fu waaye waaj dem fa ngir wuti fa barke wala sàkku fa siyaara li xew fii xew doon ca bërëb yooyee moom nag ku koy fàttale ko xadimul Moustapha ñu koy fàttale ko mooy jaamu yàlla ak wetal ko ndax daa waxoon ca tarjimal mawaahibul xudus ne maa ngi séeréloo sama boroom di séeréloo malaaka yi di séere woon ñu yennu aras ne man de bi annaka allaahu laa ilaha illa anta maa ngi lay séeréloo na amul benn buur bu dul yàlla bu ñuy jaamu jaal koy jur njëriñ njëkk a jaamu jur yur suñu borom yow yàlla waxaatoon itam ne yéen jaam yi yépp ñi yàlla bind maa ngi leen di séeraloo ne man jaamub yàlla la yaa jumlatal xalqi ashadu li yawma fiihi yahuusul mujrimuuna lawma bi anniya daarayni abdullahi xadimu abdihi ibni abdullahi kon moom jaamu bi yàlla la woon buy weetal yàlla séeraloo ko yàlla séeraloo ko malaayka yi waaye séerloo ko mbindeef yi yàlla bind yépp waaye la ma ca gën a yitteel mooy muhibba kulli muslimin wa muslima mujrima kulli muxida kulli mujrimin wa mujrima nee na moom day soppee la ci képp koo xam ne jullit bu góor la ab soppeem la li mu yéene boppam la la yéene waaye soppe la itam ci képp koo xam ne jullit bu jigéen la kon loolee bu mu fekkee ne dañuy woote turu imaam ci réew mii xam naa sax ki matu imaam bi newu fi daa man naay bi laa fi rek muy Massayer Fall war nañoo gën góor góorgóorlu ci soppante ndax moom nee na dey li mu def mooy sopp bépp jullit bu góor ak bépp jullit jigéen kon ku koy fàttaliku war ngaa bàyyiwaat xel ne wala tuhaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illallahu rawate na nag ñoo xam ne dañu ne dañoo bokk ay pos-pos bokkuñu yaakaar muy kenn ñoo ñooñee war nañoo yaatal seeni den ba soppante boggante te waxoon na ne day ngëm yàlla mooy soppante inna tahaabuba huwa al imaanu li aalihi suruur wal amaanu nee na day soppante mooy ngëm yàlla ndax ñi soppante day mbégte faw mooy am ci yem ndax boo soppee sa mbokkum jullit foo toll yéena ko yiiw yokkute gu mu am nga bég sax loolu foo toll yaa ngi bég waaye itam amaan la muy sécurité muy kóolute jaam yi bu ñu soppante wut wantewuñu wuñu rek kenn xelam du dal kon nañu gën a góorlu ci soppante wóoluwante waaye xam ne sëñ bi dey la ñuy def dëgg dëgg ay jullit la ñuy def dëgg dëgg ay mu'min muslim muhsin mooy faw dañuy feer dañuy weer ci feebar yi nga xam ne moom la waxoon ca matlabu sifa yi te mooy bilaa tanaasuin wala taxaasudi wala taxaasudin bilaa tanaasuin wala tabaxudi wala tanaafurin wala tabaxudin wala wala tanaafuri feebar yooyee bu ñu ca weree moo ñuy def xataa nasira muslimina xaasihin wa muminina muxlisina saalihin bu ñu bëggee doon ay jullit ñu seen ak jullit wér doon ay muslim waaye doon ñu gëm yàlla yoo xam ne seen islaas jooju leen di yëbal ci saalihin bokk ci ñu sel ñi faw dañuy wer ci feebar yi te xam nañu ne ñun ñi fi nekk di dund ci réew mi ndax yàlla ba mu yónni bi yónnee laxat jaakum la xon waaye min anfusikum ñun ñi fi ne di dund ci biir réew mi xam nañu ne ñun wéraguñu feebar yooyu nag sëñ bi ñu ngi lay ñaan nga ñaanal ñu suñu borom ci baraka samaam mi nga xam ne moom la ñuy xencu ay jéegoom ci moom mu Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne ku ko gis sa xel dal waaye ànd ak mbégte ñu ngi lay ñaan ñu wér ci feebar yooyu nga ñaan ñu wér ci feebar yooyu yëpp ndax bu ñu wéroon ci feebar yi kat jotaay bi gën a yaatu nii waaye feebar yooyu ba tey wéruñu si ñu ngi ñaan suñu borom ngeen ñaanal ñu ñu saafarawu ci feebaru noonoo feebaru tanaaso muy xeccoo feebaru tabaaxut muy bañante waaye feebar yi yëpp yi nga xam ne day waral feebaroo ñu ñaan ngeen ñaanal ñu suñu borom waral ñu ci feebar yooyu waaye ñii day soññe nañu soññe nañu lool ndax day lay war ne ne xaadimu Moustapha jaaroon na fi loole suñuy loxo ne ñun ñi fi nekk ñu war a koy dox di ci wax te jéego yi ci gën a sori muy maayom ba ñoom ñoo ko sasoo di ko dox kon yàlla suñu borom guddal fa ñu weral yi Euh, asalaamaaleykum kullukum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Imaam xam naa sëñ Kalaam li ma koy wax toujours mention spéciale sëñ Kalaam Ñang taalibeeb Serigne Ndiir Dial Seck boobu ba tey gis ngeen ko mook sëñ Baddo sëñ Xaasim. Cheikh Mbeng bu ñu limee sax limuñu leen pour wax ne ñoom rek ñoo liggéey waaye dañuy yóbbaale dañuy yóbbaale ñun ñëpp mu fàttali ma lu am solo muy sëñ bu Mbay mii toog ak alaaji Amadou Touba ñaan mii nga xam ne bu ma waxee ci kenn ki lu ma wax ci moom valable na ci ki ci des dañ di ay autorité doon ay cadre jaay njàng moomu lépp jënde ko sëñ Touba bu nu bàyyee loolu yëpp ñëw ànd ak nun wane wu nu coono benn yoon ndax sëñ bu Mbay mii France la toll woo ma téléphone ne ma caravane bi ma dégg ngeen koy publicité maanaam mu ne ma damay dem Gabon ma mettre ko contact ak kalaam yëguma sax bi muy versé mu jaral ko kon sëñ Tubaa jaral na ko moom mii la sëriñ Saar yu dénkoon compte sëñ Tubaa bi mu nekkoon conseil finance bu Ablaye Wade li tax ma jàpp ko mooy sëriñ bi la may wan ndax man ak koo doon bu la boo tegul fenn sëriñ bi teguma la fenn sëñ Amadou Touba ñaan mii bokkoon isbu tarqiya di toog kuréel 1 njabootam gépp mu yar leen ci lislaam donte nasaraan la jàng benn maam jaaraa ngi nii day toog ci oto bi sax di jàng alxuraan te daanaka booy seet amagul 15 ans te waa këram yëpp noonu mu xertal leen ci liggéeyal sëñ Tuubaa loolu bu mbooloo mu mel mi teewee bu ñu jàpp rek ne ay maanaam sëriñ bi sax mbindeef yëpp a yem fi moom bëggul bañul du xeeb du yéem moo gën a wóor ci xarnu bi la sëñ Musaa wax waaye lii faw nu seere ko mu bala maa jox sëñ Seex Mbeng kàddu gi ñoo ngi leen di masawu waaye ñoo di wax ne leen <laughs> lebal ngeen ko am pay kooku moom boo ko nee yow danaan tekk mel ni ku la ku la ku nga ne waat ko yow a mun a tekk rek waaye bu bis bu geesoo ban la yow it yow a dinañ xam ni yow a auzu billaahi mina seytaani rajiim laa xawla wala quwwata illaa billaahil aziim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bu ñu jéggloo mbooleem ñi fi teew di jiital kàddu nuyoo bu jëm ci sang bu tedd bi di ko jaarale ci sëriñ Bassirou Mbacke mii di ko wax ni comité d'organisation Karawaanu Mayumba bii nga xam ni yàlla def nañu di ko jiite ñu ngi lay yóbbante ak cant goo xam ne ñu ngi ko jëme ji sëñ Mountakha mi nga xam ni moo ñu joxoon ndigalul liggéey bii ñu ne ci di ko xamal ni buñ ci lottee ci kàttanit it lottuñu ci ak bëgg am nañ bëgguk liggéeyal ko liggéey boo xam ni dana àgg fa moom lépp doon ay ndam lépp lépp doon luy ndamal yoonu sëñ Tuubaa ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaare Seex Bas di nuyu sëñ Amdi Fall moom Seex Modou Mbend Fall ndax ñun kenn ku ne xam ne nag ay Baay Fall lañu ñu ngi nuyu nag délégation bu mag bi nga xam ne ñoom nga àndal ñëpp Cheikh Mamadou Sarak mii feggoo ak yow mu Cheikh Moussa mel ñi ko mu wéttali la waaye nag teewal fi nag soxna Bali Mbàkke Muntaxa mi nga xam ni ci njaal benn liggéey bi bi ko dooree dañ koo seeti woon fas yéene di ci ànd ak moom ngir jëmmi sëñ Tuubaa rek ñi ngi sant nag mbooleem ñi nga xam ni teew nañ fi ñu ngi sant sëñ fàllu Mbàkke teew na fii sëñ Moustapha Bousso sëñ Baye Abdou Bousso ñoom ñëpp teew nañ fi waaye nag ñi ngi sant sëñ Cheikh Fall Khadim di sëtub sëñ Mor Talla Fall sëñ Cheikh Khadim mii sëñ Khadim Fall moom sëñ Mor Talla Fall moom maam Cheikh Fall mooy waajuram waaye nag moom kenn ku ne xam na ni sëñ moo Fall moo Talla Fall waaju maamam ja sëñ ko yar loolu lépp daje na ci moom moo tax Baay Faal la nag waaye mi ngi dundal nag yarub Sëñ Tuubaa boobu feeñ na ci feeñ na ci agsi na ba ci moom ñu taamu woon ko nag ci mu wét luñ ci liggéey bi ànd ko ak ñun ci xat-xat ndax 13 juillet la doon taxawal ca France foofu la wëlbatikoo ànd ak délégation ñëw teew fii kon loolu ñu ngi koy sant bu baax di ko dégtal sëñ bi ba mu xam ko ba mu xam ni li mu jëf sëñ Tuubaa rek a tax waaye siggal maamam ja ak Cheikh mi nga xam ni dañ koo jëlal ci bis bi lool ginnaaw loolu nag jàpp naa ni daa am koo xam ni moom duma ko ci tudd waaye dañ koy mujje bu ma ko tudd liit moom dañoo bokk liggéey bi ndax comité d'organisation Karawaanu Mayumba sëñ bu so dama ko waxoon dama waxoon ni daa am ak njaboot gabon goo xam ni daa dund ak ñoom fanweeri at ñii ñeent fukki at ñuy xëyandoo di gontandoo di wàccandoo moom muy njabootu pas-pas ñoo ñëwee ñi ngi nekk fii yore comité bi di ko liggéey waaye nag mu am njaboot goo xam ni ak njabootu boppam ak sëñ Seexuna Buso mi nekk ci kanam ak ay rakkam yépp kon nag sa équipe bi ñu yor mën naa ni lu sëñ Fallou Buso mënoon war nañoo man pas-pas boo xam ni ab fondement la woon moom waaye ñun war ñoo mën a yëkkati lam nekkoon ba ñëpp teg ci seen bët moom nag ku am pas-pas bu yaatu la woon xamoon na ni réew mi kenn mënu fee def dara te wàccoowoo ak ñoom ci kayit ndax réew moo xam ne kilifa ga nga gën a fonk ci ñépp ñi fi yàgg gis nañ ñi dugg fii ak suñu rëfale leen ñu dellu fa ñu jóge woon kon bu ñu demee nag ba man fee indi ay nit ñu fi ñëwee nu leen neex ñu dem ba ministre des affaires bi ni ni ma yilifee ministère ministère bi ma yor ni laa moome ni laa yiri fi ambassade bi ndax ñii fi teg samay conseil la ba tey man maa man maa yore titre ambassade sa ambassadeur mu taxaw nag di ñu jàppale nii nag visa bu ñëwati sax jarul muy jàll gamoo waaye man ngeen a ñëw fii rek kii defaral leen ko ci sa noonu la sëñ Kàllaam doon jëflante ak moom su ko defee kon cant googu ñu ngi koy lawal di ko jëme ci ñooñu waaye sëñ Seex Fay teew na fi te teew teewaay teewaay boo xam ni fas yéene liggéey sëñ Tuubaa rek ak àndak ak ñun liggéey bi waaye nag maam Cheikh Mbodj di sëtub sëñ Modou Mbodj waaye nag sëñ Mor Talla nag doon maamam ñëw na teew fi ci ñi ànd ñi nga xam ne ñoo ànd ak sëñ Cheikh Fall Khadim xam naa du ma yaatal ci wet googu ndax bu ñu tuddee sëñ Cheikh Fall Khadim rek ambale na ñëpp waaye moom nag maamam daa am wàccuwaay wu rëy ci kër moo njëkk a jëndal Cheikh Ibra ab oto sëñ Modou Mbodj maamam kon loolu moom duma ko mën a ñàkk bañ a wax. ñi ngi sant nag soxna yi fi teew yépp ginnaaw loolu ndax soxna maam isaa ngi fii toog bii du bii njëkkul ci moom waaye nag soxna asu gaawa gaawaan di sëtub sëñ Modou Moussa Mbacke première édition bi ñu defoon fii ci def ko édition nationale nga xam ne yaataluñ ko ci fenn waaye dañ ko yemale woon ci suñ biir moom ñëwoon na fekke si ko ànd koog ñun te dellusiwaat na ren muy soxna asu gaawaan Mbacke soxna Moussi Bousso di rek soxna jaara ñu bokk wenn waajur sëñ Bousso meññi leen soxna jaara andi woon ko fii boobu ba tey amu ci sago bu nekkee Sénégal lépp lu ñuy def moo ànd ak ñun diñu ci jàppale diñu ci tette kon loolu mënuñu koo bañ a wax waaye na ñu xam ni lii nga xam ne moom la ñuy jottali ci soxna Moussi maanaam dox na ci ñépp ñi fi ñëw ab Baye Fall na ku ko bëgg wax loo wax ju jub rawatina Baye Fall bu jàkkaarloo kilifaam maanaam yaa ko tooñ ku manque ci ma waroon agsi yow te agsi wu ma ca nang ma ko jéggale comité d'organisation karawaanu Mayumba dafa composé ci ay membres yu nekk Gabon ak membre yu nekk Sénégal membres yu nekk Sénégal nag li ci yéeme mooy tànn tànnuñu leen ñoo tànn seen bopp te dina ci am ñu ci li ko ndax am ma Tidiane ñaan sëñ Abibou Mbaye ñoom porté nañ volontaire fas fas yéene noo accompagner waaye ña ko njëkk a def nag laay wax sëñ Omar Dieng mi ngi fii teew ci mbooloo mi doon moom sëñ Omar Dieng maanaam. ingénieur de génie civil moom ak sëñ Gilaay Top ñu bokk ay métier ñu ñëw fii Bator dama koy mujjee xaaral mamoor moor ñooñu dañoo ñëw fii Omar Dieng daa ñëw fii ñu ko fi indi mission ndekete mission indiwu ko fi daa tombé ci Mayumba ji bokk ci rek mission bu jeex mu dellu Sénégal ñu jox ko Touba ci kanam mu yoroon liggéey Touba bépp travaux yi moo ko yoree moom sëñ Omar Dieng moom lañ def mu doon trésorier ci suñ liggéey bi ñuy def Sénégal ndax ku ñëw ku ne bokk ku dikk rek bokk ku sa pas-pas indi fii ba nga dem Maayomba Maayomba yombul Maayomba yombul waaye sëñ Tuubaa ci boppam ma la fa yóbbu te moo am kàttanu yóbbu la fa sëñ Tuubaa moom moo la fiy delloo si waat te doo ko sañ a bañ soxna Bator Seck ànd na fi ak ay rakkam ak i magam ba édition bi dalee tàmbali ba tey ak boroom këram la àndaloon ñëw fii waaye bi mu gisee liñ ci daj te mu nuñ ca dara. association des juristes du Sénégal ñoom la moom lay coordonné moom su ñëwee fii ak ñàkk jot gaag la ci aju lépp mu ne nag fas naa yéene fee ak ñu ko organisé ma ànd ak yéen fii ànd ak yéen Sénégal woote na ab karawaan ca Sowal ñu jëlee ñu jëlee ñoom sëñ boole jàng kër yëpp dem jàng Sowal wër dëkk bi yëpp ba daj dem ca kër sañ Tuubaa ga fanaan fa ba asamaan set kon loolu bu ñëwee fii Gabon. du yokk dara ci diggante mag sëñ Tuubaa waaye ñu dinañ ko leeral bañ xam ko ndax bëgguñu ëllëg ak si biir muy nuru ni rek ndax yàlla moom ni mu xam doy na waaye nag kuy sant moom mataleel rek bu ko defee loolu tamit bu amee mënut a ñàkk ci ñu wax ko waaye bu jàllee presse bi fi taxaw nag ndax presse bi euh, sëñ Xaadim sekk ngi ñu jàkkaarloo maanaam sëñ Xaadim mii. bokk na ci ñi njëkk a ñëw jóge Sénégal ci groupe de presse ñëw fii sonn ci mook sëñ Modou Faye ak sëñ Aziz Diop guy mbind TV ñu ñëw di ñu accompagne ànd ñu liggéey bi bi nga xamee dem nañ nag ba agsi fii liggéey day suppiku ndax sëñ Modou Faye moom ak sëñ Aziz kee nga Canada kee France tey daa mel ne ku laal ci liggéey bi rek mën naa am boo mooy tur ñu affecté la feneen ñooñu am nañ affectation waaye fañ nekk ñoo fa nekk caravane bi porté nañ volontaire ni bu déwénee propagande ba ñu daan def dinañ tàmm di ko defee fañ féete ànd ko karawaan bi ba mu feeñ bu baax a baax sëñ xaadim bii Côte d'Ivoire la jóge sëñ xaadim sekk mi mu talaa gay nag moom sëñ seexu naa dafa liggéey liggéey boo xam ci karawaan bi mooy ba mu demee ci sëñ Muntaxa mu ni na ngeen ko yaata kër sëñ Modou Moussa Mbàkke la dale dem ci sëñ Ahmadou ñii mus a gis sëñ Ahmadou muy wax sax bariwut mu jël ay kàddoom ba ci kër sëñ Mut laa dem na fa tàmbali nag seex yi tàmbaleeg sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda dem kër Maam Mor Borom Saam dem Daaru Muxti ba dem ca sëñ aboobee nga xam ni Daaru Salaam liggéey la nag bu dul jeex ndax amul genn kër ci këruk seex ndax liggéey moom mënut a jeex tey boo xam ni dañuy wéyal suñu suñu documentaire boobu ci ñoom ñëpp ak yaatal boobu ci ñoom ñëpp bañ xam ni yoon wépp ko bokk bu ko defee kon loolu lu ñu waroon a relever wax ko fi ci mbirum presse waaye Touba te Touba TV teew na fi muy Mamor mii dend ak ñun nag nga xam ne moom amu ci sago dama koo gisoon mu ne Sénégal fu ñu waxee rek ñu naan Mamor Mbaye yoonu géej gi man ni ngóor si moo sob dëgg dëgg moom lu ko def yoonu géej gi waaye keroog ba mu ñëwee maa yomba nag diggante kër yi ba ni cëpp maa yomba tàmbali di soññe laa ne ko yow yaa yoonu géej gi dëgg dëgg dëgg waaye ndax dafa am loo xam ne wax ko ci laa yomb na waaye jëf ko nag mooy tax ñu mën koo jàpp kon sëñ Mamor jërëjëf ñi ngi sant sañ Moustapha Ka daa waajoon ba ñu defar visa mag lépp waaye bisub sëñ Modou Moussa boobee nga xam ni mooy centenaire bi loolee moom la ko sëñ mag yu taxawloo ca Dakar moo tax ñëwut waaw mu ne na sëñ Mamour ñëw te moom mu des loola ko fa téye waaye xol bi ñëw na ak yéen ji lépp ñi mboolem ñi nekk Sénégal te ñu demoon ci ñoom kenn ku ci ne amoon na pas-pasum ñëw fii sëñ daam àtta keroog bañ ko fekkee nettali nañu ñëw ki sëñ Ibra fii ak ya ca aju yëpp sëñ Cheikh Bass moom sëñ Abdou Khadir diggante bii ak waajtaayu màggal gi la xool ak yi ci war a aju yëpp xañ na mu xañ na mu ci calendrier mu xat ndax CRD fay am ak yooyu yëpp moom loolu ko tënk waaye dañu woon day ñëw ànd si ko ak ju waaw Cheikh Mamadan moom Cheikh Abdou Lahad waaye ñu ngi sant nag ñi ngi sant nag bu wér a wér a wér sëñ Abdou Samane Mbacke moom sëñ Soyibu ndax dafa am groupe de presse boo xam ne mi ngi tudd As-Samadiyya ba ñu demee waxtaan ak moom mu jël ko mettre ko ci suñu disposition ni lu ngeen bëgg mu jàll rek na fa jàll ba karawaan du jàll loolu sëñ Mouta sëñ Mourtala mii nga xam ne mooy coordonné liggéey bi doon ci jàmbaar lool lool kër ñu dem moom mu ngi ànd ak ñun ni ko sëñ Xaadim sekk mii doon defee nga xam ne liggéey bi mën naa suppiku ndax moom ma ngay liggéey yeneen liggéey Côte d'Ivoire Mourtala mii relevé fu ñu dem rek Darou Moukhty fu ñu dem rek. mu relevé na ko loolu jël ko di coordonné liggéey bu rafet te bis bi fa mu àgg loolu nag feeñ na bu baax a baax kon nag ci Sénégal bañ demee Sénégal maanaam TFM nga wax waa TFM moom euh, maanaam yàlla dogal na jàll na suñu liggéey bi bu yaatoo yaatu ndax li nga xam ni waxoon nañ ñu ko ci seen programme ni moom la ñu koy jàllaleel sax dañ koo doublé ba mujj ñun ñoo leen woon ni leen arrêté leen ko ndax dañu am beneen élément bu ñu bëgg mu jàll noonu tamit la seen TV borom seen TV noonu la waxee tamit ni moom it pare na pour jàllaleel ñu pour jàllaleel ñu liggéey bi ñu doon def ah Bekkaay Njaay waa Bekkaay Bekkaay moom it ñëwoon na fii 2STV def ci liggéey bu yaatu di ci def ay documentaire ci màggal gi ak yu bari waaw loolu da ci am solo nag ndax man matuma matu mën a wax lépp ba mu leer waaye nañ xam ne lu ci manqué daal yéene ji du manqué waaye nag jànkati xasida yi sëñ boole li ngeen ñëw di ko def fii te sëñ Touba tax yéen compte manqué lañ leen waroon ubbil goo xam ni ndax yéen dem sëñ bi sëñ mu saa wax ni mag mu ñu wax sëñ Ibra Kumba mu mën a jàng lool bi mu yëkkatee xasida yi sëñ bi jékki-jékki di bind ci kees yi waaye daa fetta su ni ko néeg bee rasulullaay nee na ak la ne ci biir nga yóbbu ko sa xam nga ko mën a jël nit jox ko am néeg ak la ne ci ak la ne ci néeg ba lépp ku ko mën a sëñ Omar Diouf jànkatu xasida ñu bari xam nañ ko nee na ma jànkati xasida yi bu ñu demee yomal xam ni ñu leen di xàmmee dañu leen di soppil ay doq yu mel ni njama la xoobee ko wurus fu ñu jaar ñu xam ne ña nga nee waaye xam nga ni nag li ko waral nag mooy mbindum sëñ bi lañ doon nettali kon yéen wax dëgg yàlla ah, lu luñ deful rek dañ ko mënul waaye dañoo bokk yéen a bokk pas-pas liggéey bii nag hmm, waaw soxna Seyna bu njëgan biñ nekkee Sénégal def cee sonn jàpp ci ànd nañ ba toog ak ministre Mountaga jaaw bu tourisme Sénégal liggéey bi ren dafa xat ndax li tax mu xat mooy changement de gouvernement dafay am ci diggante bi Sénégal am ko ci Gabon te benn bu ci ne mënoo caa déroule programme bi ñu xaaree bii ba mu jàll bële ñëw bële tamit bi ñu toogee laata ñuy xam bay mën a jotal yëf fi karawaan bi agsi waaye loolu lépp def na ci ay taxawaay yu baax a baax def na ci ay yéene yu baax a baax lañ ca jiitay jii déwén lañ koy góob kon incha arab bi damay am benn jànkat boo xam dama ko bëggoon a beral loxo sooy bu mbaay li tax ma koy beral loxo nag bu leen ma ci mere ku ne am nga mbokk sama jarbaat la. doxit ci waxit ci jëm booy nelaw sax da ngaa war a mun a amul loolu gën a delloo si suñu xel te jël suñu lépp teg ko ci siraatal mustaqim te déglu suñu dëgg rek sëriñ Tuuba loolu leen gën a góorgóorlu ci liggéey bi du liggéey bu ndaw de buñ ne Tuuba dañu am gaw loolu rek laa bëggoon wax ñu ngi sant mbooleem kilifa yi nga xam ci ñëw nañu di leen ñaanal seen maam suñu Tuuba mu mu mu ko fa yóbbu woon ci coobare boppam ñenn ci mag ñi sax bu ñu mu seen wax ak sëñ bi ba baatu bala tubaab bi jàppee am na ci sëñ bi na ba ma jàppee tubaab bi sëñ bi moo amoon fu mu soxla xam nga ni keroog ba ahlu badar feeñee ci jéewal ñoom talatuñ lu dul tàggoog sëñ bi ndax kiiraay gi bi mu muri koo dañoo soumettre toog désarmé di déglu ndigalu sëñ bi mun leen fii laay fanaan mu fanaan fa ba ëllëg ñu door ànd ak ñoom muy daw nag ci yàkkamti di daw ci lam jëm bi ginnaaw bu mu amee ndigal boromam nga xam ne fas wi mu yor ñoom ñoo daw topp ci ginnaaw te ñoom ñoo ko doon jël si waaye moom moo jiitu ñu topp ci moom ba ba ñu ba ba ñuy àggalu ko mu doon mbir mu doon mu doon mbir mu yéeme yéeme yéeme mu ne billaahi faaraxtu nasaara jéewale waxay ruwaa xat an bilaa tanawuli mu mel ni kon jéewal googee fa la sëñ Tuubaa tàggoog ñoom lu ci des nag ñoom dañ ko doon jàpp si waaye jàpp see tuñ ko mu am liggéey mu jàpp leen te mën a te mënatuñoo rëcc mu ànd ak ñoom ba ñëw fii Tuubaa bu mu sa jotee ak sëñ Tuubaa bu ne bu ngeen gongi koo yow danga nga naan mucc dootoo dootoo déggati luy bokk sëñ bi bañ naan ko banu banan la Tuubaa bu mu sa dajeeg sëñ Tuubaa dañ lay affecté wut wuti ku ko xamut ku ko xamul rek dugg ci moom keroog ba ñu yëkkati drapeau ba ca ndar drapeau France sëñ bi waral woon ko ginnaaw ñu bëgg koo ngir mu xool drapeau bi mu wax ni su wëlbati koo xool ko rek nguuru France yam tey ñu ba ko sëñ Moussa Ka ni ñoo gën a ragal señ bi ñoo gën a xam sëñ bi ñoo ko ko ragal fu mu leen rëddal ñu yam fa weesu wuñ xumba ñu xam sëñ bi lañ bi sëñ bi jàkkaarloog tubaab bi ñu yëkkati drapeau France dañuy waral wan ko ginnaaw ñu daw ñëw ci moom ni ko lu tax xooloo drapeau bi ñuy yëkkati xanaa dangaa dangaa ñàkk a soumettre suñuy suñuy loi mu leen bu ma wëlbati koo xool ko rek nguurug France yam tey sëñ saa Ka yi ñoo gën a xam sëñ bi ñoo ko koo ragal fu mu leen rëddal ñu yem weesuwuñ xumbal keroog bi tubaab bi waaxoo jëm si ci jëm sëñ bi ni kaalam gi dañ koy dindi ndax fii mbaxana benn rek la fi ne keroog la mbir naroon a am bu ñu yoree seen loxo jëm ak ci ñoom rek bâtiment bi ñu nekk jong jeng ñu bàyyi ko taxaw moo tax bi ñu ko indee ba fii instruction yi ñu jox tubaab bi dañ leen lu mën a xew ak lu ngeen mën a jotee moom bu leen jege bopp bi bopp bi moom dansé ci nekk ku ci jëmale sa dara rek at da tukki nga xam ne ñu ñu di ko sàmmal nag ñu di ko sàmmal ci ci fànn bu ne Mamor waaye sa suñu sang bi Cheikh Ibrahima Fall Baab Mouridina mu toog ci ndar xam nga tax Cheikh Ibrahima teel populaire ci ndar dafa dekkal nit fa denc jaañ la Cheikh Ibrahima dekkal bu boo xamee ne atumaan suñu maam dan na yalwaane bu demee mu di ko tibbal ndab ne ko dootuma sax dama lay tibbal. maam Atouma ñëw di yelwaan si ñu ni ko ki la daan sax de sa ndey daal ji moo génn àdd mu ne anamu ñu ni ko mi ngi ci biir mu ne neexal leen ma ma dekkal ko ma woy sama sëñ mu dekkal ko ñu ni waa kii xanaa nit la ñii fi door a ñëw nag ñoom duñ fi wax mukk lu xam ni kuy dekkal nit ku ko mos a dégg am ku ko bëgg lool ne man de lu ci mën am dinaa ko neexal mu neexal ko mu pëccati ko foofu daw fekk Seex Ibra loo da ni ko sama ndey daal jama sax moom la ñu daa faatu waaye diggee naa fa ak dekkal te biig la woon ba deret ji way ci aw yaramam billaahi sëñ Cheikh bu mu duggee ci moom ab biir ñu dégg mu tissooli maam Cheikh romb leen dem mu ne ko delloo naa ko room delloo ko ay cëram mu yeesalaat yàlla mu mu gën toog ci ëtt bi taxaw ne ko man benn doom bu jigéen laa am xarjata ñi nga la tudd mi ngi nii toog waaye dama la ko fa yéene may léegi mu ne ko man sañu maa def lu ma sama sëriñ digalul mu ne ko bu nangoo faat faal waa de mi sama doomu càmmaña ma jox la mu dem wax ko Cheikh mu nangu maam Cheikh lañ jox ko soxna Fatou Fall Wade mu am ci soxna Lalla am ci euh, sëñ falu Fall ma demoon ci guerre bi sëñ am ci sëñ Ablaye Fall Ndar kon loolu xam nga ni ku dekkal nit ci dëkk xam nga ni am fa lu kenn amul moo tax tubaab bi bu ñuy wote carpo ba muy wote dani nañ ma wool bu ma jàppale ma bu ma jàppale rek ma gañe Cheikh Ibrahima jàppale ko mu jël nguur gi maam Cheikh dani ko man jàppale bi lu ma ci am na sax ak lu ma lu ma ci nekkal mu ne ko boo ma jàppalee décret bi nga xam moom la français yi bind ba ba exilé sa sëñ ba Gabon dinaa ko modifier bind beneen décret ñu delloosi ko ci réew mi maam Cheikh moo delloosi sëñ bi ci réew mi ci waaye nag booba dëppoo naag dogalub yàlla bi nag ba sëñ Tuubaa ci boppam war a dellusi ci réew mi mu daje nag ak loolee looloon delloo sëñ bi jëm ba mu delloo Ndar ba mu delloo ba ñu yóbbuwaat ko Mauritanie Cheikh moo bindub lettre ñu jëli ko dellusi ko ci réew mi loolu la ko sëñ bi doon liggéeyloo loolu la ko Cheikh Ahmad Bamba doon liggéeyloo ci Ndar xam nga lu ko yóbbu Ndande moo tax may wax wax ji nag dama ne Sohaybu sëñ Fallou Mbacke mu xaadiman xidma wax na dëgg xam nga am dofu Baay Fall ku ko bëgg a waxloo ci biir mbooloo bu ca erreur amee di leen jubanti rek waaye li wér te wóor la yóbbu Cheikh Ibrahima daan laa bëgg a wax loolu laa doon wax ci Sohaybu mii xam nga Sohaybu li ma ne moom la bokk ak moom li ma ne moom laa bokk ak moom sëñ Cheikh maam maam Cheikh daa dellu cay loolu ko yóbbu ndaan sëñ bi dañu ko dellu ci say mbokk defar leen ndax ab ceddo buy toppaate sëñ bi yombut maam Cheikh Ibra dellu fa mos leen ci boobu nit nit kurus dellu seen jox leen sëñ Tuubaa mun leen lu leen may faal yéen faam ngeen santoon la leen Cheikh Ibra wax dani lu tax lu lan moo leen may faal yéen bañ di leen wooyee faal loolu daa daa gudd duma ko wax waaye dañ leen yéen lan moo leen may faal man mii maa am faal ba yàlla ne kun rek la ni moon faal yow ma ñëw fekk leen ngeen sant faal te faal mooy faal ak fulli seen faal jii nag doon leen may ak dameel man jébbu laa ci sëñ Tuubaa joxewaal na joxewaal naa seenu bal da di ñëw rek bu ngeen bëggee falu waaye ku dem xam nga Tuubaa xam ne xam ne faa leen am nañ la ëpp fal la xañ nga xam ne moom la jéeri jooroon deer bëggoon bu nekkoon sawur maam bu jaay yaa ni maam mun lii rek la jéeri bëggoon jéeri da ko bëggoon ci doole mënu koo am waaye Seex bi daal liggéey sëñtuwaa mu faye ko jaam yi ñu naan ko yaa yi moom Fall kon li am solo mooy la ko yóbbu Ndakaaru nag mooy booba Dakar la port bi ne fa la sëñ bi jógee dem buy dellu si fa lay dellu si seex wutal ko kër di xaar mu ñëw moo ko boot yóbbu ko laminaas yóbbu ko ci këram dalal ko fa jox ko kër gi kër googee bi sëñ Tuubaa di dem mi ngi ko jox sëñ Seex Coro dafa am loo xam ni sax xajut ci xeeti jataay yu mel nii parce que nga maam Mor kon daal ñoo ngi jégalu xam naa wasalaamaaleykum wa rahmatulah. maanaam foog ñu waaw. foog ñu def foog ñu def benn émission boo xam ni bilan lay doon xam naa fi ak suba comme presse baa ngi fii nga xam ni loolu waajtaay Sëriñ Fàllu Bakke moo fi teewal waa Muxaddamaatul Xidma ak boppam dal gi yar bi teggi ni tax na ba du nangu sax ku ko ku ko tudd gis nga yoonu murit ni muy doxe yoon wi ñu jàngal nañu ko ba tàyyi sëñ Cheikh Mbeng mi ki mu doon wax léegi muy maam Serigne Fall tubaab bi daa woolu maam na da dafa laaj ñu ne ko sëñ bi nga yóbbu ci géej gi dafa am ñetti Ibrahima ñett ñooñu boo leen woowee wax ak ñoom bu nu tiitee mën nañoo tas yoon wi mën naa tas ñooñu waroon naa leen a téere tudd waa kër Cheikh Béthio Thioune ci njiital sëñ Moussa Dramé seen sëriñ daf maa bëggoon maa ko mës a fekk Mermoz mu taxaw di xool nag yi rek ma fekk ma jël taxi boobu yoruma sax oto ma wàcc ne xaaral ma xool nag yi Seex Béthio yi ma wàcc daal ne ko sa boppi nag yi rek mën naa gàmmul gaa yi mu ne nga nii waaye yow fu la sëñ Saaliw dencoon barke borom Tuubaa waaye fekk ma ci biir waaye ana ana sémmu joxal ma ko yëkkuwu nag nag yi foofa laa ko jaay parce que mënuma ma ko indi caaro yi ñu naan maam am na nag foofu barke Cheikh Mat Bamba bëggoon ma lool Madina Salaam bu ma sëñ mbàkk yu mosaan a yebal danaan ah presse bi wutal naa leen dal waaye maam nag man lay dal fii di dina xumb yàlla na ko sunu borom dolli li ma ko gën a jàppe mooy màggalu sëñ Tuubaa gi la amul woon sago foofu la ma waxee woon ne ma waaw dama ko fekkee màggal mu daal ne ma gis nga tóoroo bi ma yeewu ci nag ci gétt ci gétt gi mooy nagu yooyu dina nekk ci documentaire yi tóoroo ma ne ko cuur gis nañ ko ñëpp ngi koy seetaan di ko sinap nit nit ñaa ngi koy jël di ko dugal mu ne waa man yi doo ma laajal ñi jàng boroom xam-xam yi ndax njamala njamala dees ko ne ko lekk dégg naa de am na keeñaa barke Xaadim Rasuul ma ñëw ci lii may résumé rek kon ñoom danoo ànd ak ñun maa yomb ak fépp waaw waaw sëñ Saliou Thioune fi ne sama nag ak may xaar màggal gu jot. màggal màggal gu mu jox mu jox mu jox ma mu jox ma aw nag ak la cay ànd ndeysaan noonu nii la ma sëñ Cheikh Khadim Fall mi di def Fall ñaanal leen ko Mbàkke mu yokk sëñ seex mi xol bi rëy na ci sëñ bi. loolu sax yéen xam ngeen ci dara tubaab bi dana ñetti ibrahimaam yi woo leen ko ñu ñëw ngeen tas yoon wi muy seex Ibra Sarr ak Cheikh Ibra Fatick maam Serami Fall biñ ñëwee ñu dalal leen dara Cheikh Ibra daal ne ah. ne maam Thierno Cheikh Ibra Sarr Njaañ buñ demee li may wax sëñ Basiiru Sarr jaamu sëñ Tuubaa ma ko nett bi buñ demee dajama bu ngeen ma bàyyee ma wax du yàgg ñu ne ko jox nañ la kàddu gi ñu ñëw tubaab bi teg benn chaise ñoom ñëpp ñu taxaw tiim chaise bi tubaab bi ne leen waaw yéen baaxoo ngeen am kilifa ma teg benn chaise kenn nangu cee toog cheikh bi dana ko ñun kenn lañ amoon ko war a toog ci chaise te yaa ko téye mi ngi say loxo bi mu demee te bi mu demee ba tey kenn nangoo tutu toog si chaise ñu ne ko ah mu ne ko waaw waaw Cheikh Ibra Sarr Njaañ mii ni mu mel ci taar ku ko gis xemmam ana lu ko waral mu leen waaw moom dafa am téere boo xam ne da koo mokkal te ku ko mokkal nii lañ lay bëggee mu ne ko Cerno Birahim mii nga xam ne du tiit du raf jàmbaare lool dëggu ana lu ko waral mu ne day rakki boroom téere bi déggal ko di taalibe